safandu dit ke malkamago gor martam beskendoyay fatangan marka sopi jogoyna miñana cona jomnaye safandu dit ke malkamago gor martam beskendoyay fatangan marka sopi jogoyna miñana cona jomnaye safandu dit ke malkamago gor martam beskendoyay watangan marka sobi jogoyna miñana cona jomnaye afandodirke malka ma kokor marta beskendoyay watangan marka sobi jogoyna miñana cona jomnaye e ordinateur a rokanga kam xel ke fogola sereer fati ndamtinoay cosano xanga ñowaye e ordinateur a rokanga kam xel ke fo banjalo fogola sereer fa denam den waay cosaan oxaaga ñowaay e ordinateur a rokanga kam xel ke fo banjalo fogola sereer fa denam den jaaxal lii lan la sa të të të të të të tey ak njom hmm? waxe na jàmm waxe na jàmm paa paa arika la kay alhamdulilah noo waajale mbër waaw ñu ngi pare ñu ngi pare fépp waaw alham di wax alhamdulilahi rabil alamin waaw di ko ñaanal jàmm rek di ñaanal mbër bi muy euh, dajal di ko ñaanal jàmm bu baax a baax. mel ni tey bagage yëpp génn parce que man li ma gis nii tey mosuma koo gis butéel ba nga xam ne dafa am lu mu teg ci kaw muy wëndeelu. ndax combat bi daf ñoo jaral lu bëree bare bari moo tax bëjën bi génne tey to kii du caaxaan moo koy génne kii tax mu génne nag daf ñu koo jaral muy Malick. dañoo pare si moom si kattanu yàlla nag ndam li dañ koy indi incha allah waaw pare nañ fépp. kon daal lii caaxaan génne. kii caaxaan du ko génne te ñun dañu buñ rek engagé wu nañ fii mooy Sambé fii ragal du fi dëkk te ay caaxaan ko fi lii li ko génne du caaxaan. kon combat bi dafa am lum lañ jaral. combat bi daf ñoo jaral lu bare bare bare bare ndax fii daanaka dañoo jaar fi rek waaye fi ñu jëm moom du pour kii daal waaw dañoo jaar si kii rek. mais ñu ngi waajal yeneen ko ci kanam. promoteur dafa tëgg ay combat yu neex boole ko ci moom mii mu war a bëre combat bi moom nag muy yaakaaru Sambe bu jógee Sambe yëpp jóg bu jógee Mbayaar yëpp jóg bu jógee xale yi nga xamante ne bii dañoo bëgg Malick Niang yëpp jóg ana ñu bëgg Malick Niang ana ñu bëgg Malick Niang ay ca Oh! ayca ayca mbokk yi gannaaw bañ leen nuyoo jaajëfal leen ci ànd bi nga xamante ne bi yéen a koy ànd ak Leewtoo TV tey nag ñu ngi Sambé Niakhène ku nekk xam na ne Sambé Niakhène dëkku làmb la suñu la nee suñu papa dégol fi la dëkk war na ñoo xam ne fii dëkku làmb la su la booy ñaa cappaa colu gi fii la cosaanoo war na ñoo xam ne tey fi ñu ñëw place làmb la wante kan la ñu fekk si Malick Niang xale bi nga xamante ne bii macha allah dafa bokk ci espoir yi Sambé yi dafa bokk ci xale yi nga xamante ne bii ëllëg fa Boy ñaa àgg moom mii war na faa àgg di représenter sambe fopp ci àdduna bi. samedi nag mu am combat allah bu ci yàlla àndee fële ca stade Elimanel Fall digganteem ak ki nga xamante ne bii moom mooy Zarko ñu fa yéene waxtaan ak moom. naka la waaje combat bi le jour ji naka lay andi naka lay bëree ak ki nga xamante ne bii moom mooy adversaire am ak naka lay dalale ay xeli supporter am mbëri ñu bàyyi la nga nuyoo ñu soog a dugg ci biir waxtaan wi. salaamaaleykum maa ngi nuyu waa Same ñëpp di nuyu sama écrit amul salal quoi di féliciter Boubou Thiaski en même temps di encourager Bébé Diène di féliciter Bébé Yamo di wax ne di féliciter. soxor sama genn wàll quoi sama gaañ la maag moom benn la presque. di bëgg waa Saam ñëpp di bëgg di ziar sama staff. di ko oh, di ko ci di ci jaarale di ko di ziar waa sama staff quoi. waaw di jiital ci ci. nio bi Gana Diouf président bi ku lim jum quoi mbala doo matali di bëggee ñi fi toog ñëpp sama gana yi toog yëpp maa ngi leen di ziar yi ñëpp di sama papa quoi moo ngi nii mm-hmm. ah, sama ah, sa papa nga fi. waaw sama papa moo ngi lale. ndeysaan macha allah mooy papa bu ñuul <laughs> di. père ñu ngi lay ziare. waaw di ziare sama papa di ziare sama yaay di ziare sama yaay yi toog yëpp. Mm-hmm. di ziare fi toog ñëpp ab booy nii. Mm-hmm. loolu wax allah dig daje rek. stade Elimanel Fall. yéen ñëpp le 22 juin allah ñu dem. ndax instant bi liggéey nañ ñu war a liggéey yëpp. physiquement mentalement moralement. dem ca li kese moo def. yéen ñëpp maa leen di woo incha allah comme ni ñu ko daan defee ñu ngi ko daan defee chaque jour rek dem yëngal dem ngeen yëngal ci kaw ma yëngal ci suuf waaw di leen bëggee ñëpp di leen ziar tamit parce que ay ca mbër ay ca sànq da ngaa wax lu am solo nee nga pare nga ci côté yëpp pare nga mentalement pare nga physiquement pare nga mystiquement mais xale bi ngay xale bi ngay bëreel di xale ba nga xamante ne bii moom tamit yaakaaru làmb la di Zarko xale bu mën a bëre nag est-ce que xam nga ki ngay bëreel bu baax non man moom yàlla def na man man kooku jaaxal ma ci bëre quoi man moom su bëre ma yóbbu ko top 5 bilaay wala taalax leen ko wax su bëre ma yóbbu ko top 5 bu xeexee ma door ko mu daanu bu xeexee ma door ko mu moom mu ne ma li ma bëgg mooy Malick Niang bu arbitre soufflé mu taxaw samp ay tànkam ñu samp jaaga na ma may cinq maak moom amul jàppante amul dara xeex rek pare nga pour loolu. fii sama génération Diourbel bi bu daj laa war a wax de kenn ñamul taxaw taxaw ak Malick Niang di xeex loolu maa ko maa leen gën a ñeme kaa a bandi gën leen am ñeme géew bi. billaay wala taalaay Zarko. waaw li ma leen di wax rek mooy man kii mënu ma mënu am lu ma jaaxal parce que mosuma tas ak ci benn mbapat. li ma jot a dem yëpp mënu ma jaaxal ci benn. mais li ma jaaxal nee na yow français nga yow ñeme woo xeex. man français loolu incha allah dinañ ci man au moins door naa kenn mu daanu te moom mosu koo def tournoi yi amoon Diourbel fii beneen na fi que 76 kilos moo ko présenté ma présenté amul solo 96 li ma def defu ko billahi wala talahi kon moom kon moom bu xeexee bu xeexee ma yor ko mu daanu bu mbéree mooy bu ko top 5 fii laa ko waxee dinaa ko fi waxaat billahi wala talahi image yi kay ngi fii dina wër àdduna moom waaw samedi incha allah bu taxawee hmm. combat bu méttee 5 minutes damay bañ ñu la de man kenn du ma vaar ñi xam nañ ma boo am na ci man yaakaar ma sas xam nga tax dañ ma sas waaw li ma bëgg a wax sax ci séeréer laa ko mën a waxee quoi waaw kam bëgg a ci am fogole séeréer fogole séeréer kam bëgg naan gilo xam paax to fantiga rakandi tanami o ɓisa mbero um ganon dam to in in in ke fopa jegna in weso gano jego oh. waaw fopa inoxan dam tiido in bila wala tala jom ka gara samel ne um layna nuun jom ina xale ngam no mene no mbayin to me leyama nuun ga ne gis nga lamb ji ay affaire bose yi affaire yi nii de dañ ci dugg pour tabax ci ay kër nekk ci roi des arènes fe mod loo nekk ne man nag bëgg naa faa nekk macha allah bilaay wala taala ma fi di ay ay bose yi affaire yi man yooyu nekkuma ci booy xam nañ ko man li ma ne dama ko gëm bilaay wala taala le 22 incha allah ma leen jox dig daje yéen ñëpp waaw ñu dem yëngal stade bi comme niñ ko daan defee chaque jour dem yéen ñu ndam ko fii to par nañ pour loolu yéen ñëpp pare ngeen yaakaar naa waaw man li wax ni ñëw leen ngeen daal jàpp ci bés bi man instant bii fi ma jëm ko ñeme bu baax xam nga ndax li ma am nii tey yobbul damaa jóg ñëpp ñëw jàppale ma xam nga waa Samba yëpp dañ ma bëgg teel rek man defaluma ma leen di wax ne luy sotti rek lépp dina baax incha allah ma leen di wax ne yéen aw ma seen fay waaye incha allah koy waxee rek incha allah dem yëngal ko jëndi raa bi ko fii incha allah diggante Malick Niang ak ay supporters am diggante Malick Niang ak ay fansam lan la parce que tey gis na ne temps amul ak ni mu guddee ñëpp toog xaar affaire bi. <laughs> waaw loolu it maa leen di masu coono quoi parce que xaar bi yàgg na trop. depuis loolu presque deux temps ngeen taxaw fii di pour assister sama sama sama présentation quoi. Hmm. ma di bëggee ñëpp di leen wax ne a coono quoi lii yombul. Hmm. nga woote woote yomb na mais ñu wusi la moo jafe. waaw ñëpp ñu wusi nañ ma ci jàmm salaam. mais xam nga li a fayee. waaw xam naa li a fayee. dem door bu daanu comme ni ma leen ko waxee rek su bëree ma door su bëree ma yóbbu ko top 5 wax naa leen ko ma ko ma koy waxaat trois fois. su bëree barke alxuraan ma door ko mu daanu. su bëree. ma yóbbu ko top 5 bilaay wala taal maa ko dàq bëri fuuf. bilaay walaay. moom nee na waaw waaw. mais mais sama gars yi sama gars yi ma ñëw. ma ñëw ma ñëw ñu continuer rek. ñu continuer rek waa Aïcha. waaw di mbéy sama grand bi Mamady Ndiaye. waaw. ndax tey su ma demee ba dugg ci lamb yaakaar naa moom moo tax quoi moom motivé ma dugg ci lamb mm. xam nga di ko ziare mooy sama gànnaaw ndax bu may man yàggu dugg ci lamb quoi mm-hmm. on bi muy entraîné di ñëw fii fa ma doon fekk ci buntu kër ma toog mu ne ma booy kañ dem entraînement maa ñëw fii di contact ak gars yi du ma xam nga oh, départ bi ñi ma mën entraînement dama ñëw rek di kii di fii ñi nga léegi ma entraîné soo gëmee sax mën ngaa nekk dara ci lamb moom ma motivé tey dugal ci man xam-xam xam nga di ma kontaakal fii def ma mbër Kamal Mamadou Ndiame ñëpp xam ma ma nekk nii champion tey incha allah waaw lépp dina baax mais mais damaa bëgg ñu ñëwaat ci combat bi tuuti bala ngaa sant gërëm ñu tàggatoo parce que dama waxtaan ak Zarko mu ne ma Malick Niang day xaar ba jamono neex bu jour ba lu fay neex maa koy def maay bëre maay xeex maay daan loolu moom xam nga waxu mbër la rek comme ni ko wax rek incha allah stade bi man maa koy yëngal ci kaw sama supporter yi xam ne bëgg lu jàmm xam nga loolu rek la ñu def yëngal ci kaw supporter yi yaa yëngal ci ci kaw waaw mooy li ma leen may leen di wax rek waaw bilaay wala taala kee li ci combat bi man combat bi laa gën a entraîné ci combat parce man su ma déglu sama groupe whatsapp yi rek sama yaram yi day dem ba daw quoi parce que gars yi combat bi lan moo ko wutale ak yeneen combat yi donc combat xam nga tax mu wutale ko ci ma wutale ko hmm. xam nga ma leen di remercier yéen ñëpp hmm. doon wax ne jàppale leen dem ñun hmm. lamb dañ ko war a teye fii Samb barke Serigne Bamba loolu dañ gën nañ ko to am nañ capacité bi ngeen jàppale ñu ñu yëngal fii xam nga waaw comme moo ko waxee rek. Zarko lu mu andi. Hmm. day daanu. barke suñu mama day daanu day daanu day daanu. Zarko day daanu lu mu andi day daanu. kon ko fa Zarko de ñoom déranger ñoom a tax a jóg xam nga déranger laa soxla. déranger benn. barke Serigne Ba moom laa soxla déranger moom a tax a jóg boobu dañoo nekk si yoon bi rek xam nga ñu war a xuus dem quoi il faut loolu mënul ñàkk il faut ñu laalanteeg ñoom hmm. mais moom bi war a taxumaa taxuma sax jóg mm. waaw ñu maanaam man li ma topp topp ko mm. waaw di gërëm di gërëm sama saltige yi tamit en même temps mm. ñoom suñu baar xam nga saltige bu mag bi waaw ñoom guj ñëpp maa leen di bëggee ñoom Elzo xam nga di leen bëggee ñëpp di leen ziar di leen wax ne dig daje dem yëngal stade ndam yi miin nañ ko quoi maa leen ko tamal bëri daan ñibbi incha allah ñu koy defal ayca wooteel ñu ngi woo ñu nga bi ma jox waaw maa leen di woo rek ngeen ñëpp xam nga ñoom biram maa ngi leen di wo di woo ñoom Baara Sène xam nga sama grand yi sama stade moom du ma leen du ma leen woo ñu quoi xam nga par par force da ngeen di ñëw yéen sama stade bi waaw maa leen di woo yéen ñëpp ñëw leen ngeen jàppale mu ngeen jàppale ñu sax laay wax du ma wax man kese waaw a téye lamb Diourbel moom loolu loolu laa allah mi ngi noonu mon jigi ayca waaw leen wax na tamit waaw di leen wax ne tamit hmm. yéen supporters yi amul dugg sama école di dem stade hmm. damaa bëgg yéen ñëpp ngeen ñëw fii dugg ci kaar mu fees hmm. waaw lu ngeen ñëw ñu andi ñu fay fay fay kaar yi ñëpp ngeen dugg ñu dem feesal stade bi amul dugg fenn yéen ñëpp ñëw leen fii wax naa leen ko yéen ñëpp waaw ñu dem yëngal stade bi ngeen yëngal ci kaw ma yëngal ci suuf par force Zarko day daanu maa leen ko wax loolu maa leen ko assuré bu leen tuut waaw di leen bëgg yéen ñëpp taxawal mu dem taxawal ayca jaajëf mi ngi noonu ay ca mbokk yi léegi damay jox kàddu gi mën ñu ngi mais balaa boobu damay jaajëfal suñu papa yi nga xamante ne bii ñoo fi taxaw boobu léegi xam nañ ne guddi na wante jàppale seen doom jàppale seen jarbaax jàppale ki nga xamante ne bii mooy seen mbër moo leen fi téye ñu ngi leen di jaajëfal ci taxawaay bi di jaajëfal sama xarit bi Adama fay di ko nuyu bu baax a baax di jaajëfal Jal Diop wala euh, euh, mbër bi jàmbalaay moom tamit def na lu nekk ci làmb macha allah Alboury maa ngi koy nuyu di nuyu champion yi ma fi fekk yëpp di leen ñaanal jàmm ak salaam waa écrit amul seral maa ngi leen di nuyu sama rakk yooyu ñoom bébé Diène amul frais ak ki nga xamante ne bii moom mooy bébé yaamu macha gis ngeen démb bébé moo doon bëre fële ci arena fële ci stade Ely Manel Fall digganteem ak Ndefleng mais suñu borom dafa dogal mu ñàkk. làmb noonu la làmb tey da ngay daan. suba nga daanu macha allah mi ngi noonu ñaari ndamay dugg waaye benn mooy génn ñu koy félicité bu baax di ko wax ne entraîné waatal avenir bi mi ngi sa kanam. léegi dañuy waxtaan ak Mbodj Gningue Mbodj Gningue nag man li ma jaaxal ci moom dafa nag dafa sonn ci booy bi te li tax mu sonn ci booy bi xam naa ne am na qualité yu mu gis ci moom Mbodj Gningue dafa doon takk ngemb di bëre dem na ba drapeau chef de l'état bëre au niveau international mais boo ñëwee boo ñëwee sa temps yëpp nga ko ci xale bi. am na lu ko waral gannaaw ba nga nuyoo nga wax ma li waral loolu. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant. di leen baalu ak te di leen baalaam. waaw dama wax nag euh, ci côté gërëm bi ak sant bi. man maa koy wax quoi parce que xam naa ne Malick Niang. bon ñi koy jàppale dañoo bëri. te yëgu ko li nga gis ba tax nga ngoy ci moom nii rek wax ma ko. non li ma gis ci Malick Niang moom laa gis ci boobu Thiès gi moom laa gis ci booy yëpp. ok maanaam li ma gis ñoom mooy. Hmm. mën nañoo bëre gëm nañ affaire bi. kon ku leen jàppale ku leen pousse dañuy dem man foofu laa visionné rek ma naa leen jàppale c'est uh-huh. que man mënatumaa dem naa jàppale booy ñu dem moom da ngaa teel a gaare waaw gis nga ay <laughs> léegi kon ñu bàyyi la nga nga nga santal nga woo wooteel Malick Niang ñi nga xamante ne bi waroon leen woo te leen waaw képp ma woo nag dama laa sant parce que dañoo def ba pare uh-huh. maa ngi woo waa Sambi Ngaraaf uh-huh. waa Mbeelo Ngelmaak Gapo Patar Sambi école di Euh, jël woote bi di ko teg ci loxo Aliou Diom Samba Gueye Ndiaye uh-huh. dem Ngoj di woote waa Ngoj teg ko ci loxo Jamalaay ak uh-huh. Seydou Samb uh-huh. Samba Ñaaxar mu duma leen woo xamante nañ waa ci lañ bokk ñëpp sax ci lañ bokk mais mbëru fii la jógee maay woo ñëpp tookasoon maay woo commune Patar commune Touré Mbon surtout waa Candigé parce que ñëpp ñoo jàpp si boo gisee may woote nag affaire dafa am nu mu demee yaakaar naa mbër yàgg na nekk Sambé di bëre te amul open press loolu nag di ko waral dina ko wax pour ñëpp xam ko du Modou moo gën a xaalis am di def open press mais dafa am staff boo xam ne da jàppale di jàppale mbir yëpp incha allah staff bi nag président bi Gana Diouf la ñi fi teew gis nga leen Soudou seen ñoom Seydou ñoom Samba Gueye Ibra Gueye euh, Aliou Diom Basirou euh, Jamalaay ak euh, Ablaye Diouf waa Mbaye hmm. mënumaa ñàkk a lim acte bi dafa rafet quoi. Euh. booy bi defalu leen dara. ndeysaan dañ koo gis rek bëgg ko te yàlla tax. defal ko groupe defal ko staff di ko jàppale ci côté yëpp. Euh. li yaakaar naa mosul am saami c'est la première euh. kon il faut ñu sant leen gërëm leen. waaw dañoo def lu rafet. comme ñi ma doon lim rek ñooñu mooy staff yi ñeneen ñi teewuñu. Uh-huh. mais ay yite moo rek. Uh-huh. su ko ma bëgg bëgguma kenn di jaar fenn di dem. na ñëpp ñëw fii dugg si kaar ñu dem stade. ah am na deux talons cent billets dafa war a jeex incha allah ñu xam ne Malick Niang am na mbooloo comme ni ko Boubou Thiaski defee Boubou Thiaski keroog deux cent mille la jaay stade macha allah waaw waaw ñooy woo ñëpp na ngeen teel a ñëw mbër mi quatre heures quatre demi la war a dugg stade mhm. kon trois heures na leen fekk fii incha allah mhm. parce que bu retardé mhm. dañ koy dagg moom bu retardé benn minute dañ koy dagg kon na ngeen teel a ñëw ñu teel a dem stade waaw di gërëm yaay faali suñu yaay yi. Hmm. vraiment ñoo ngi leen di mosawu. waaye yàgg ngeen fi trop. Hmm. ak xelu jigéen ñi. Hmm. ak ñii moom du ma leen gërëm mafia bi la. waaye écurie amul seral nag écurie amul seral. amuñu seeni fay xam ngeen xam naa. waaw ku ci mel ne amul frein ñoom bébé yaamu. sama doom day bébé jën. gars ñëpp ñoom kama. Mm. waaw sant naa gëm ñoom yaa saar mm. même yow ca nga mm. xamante nañ sant naa leen gërëm naa leen yéen ñëpp laa sant waa père moom mooy loolu du ma ko sant xam na xam naa ñoom Amadou gars yi ñëpp sant naa leen gërëm naa leen Omar Pouy Omar Pouy Modou saltige ah ak Baara saltige ak Abouya ak Mbaye Sène ak Baboya ñëpp laa gërëm di sant ñëpp vraiment kontaan naa si yéen lii moom dafa neex quoi man sama xol moo sedd loolu la rek yàlla xam ne maa kontaan wasalaam macha moo doon bëre ak ki nga xamante ne bii mooy bébé jéen bu écrit góor yam daan ko jël bu rëy nag daan ko avec la manière di xale ba nga xamante ne bii xale bu mët a bàyyi xel la ndax mi ngi ci yoon macha allah Sambe nañ ko jàppale dinañ ko dégg fi ñuy dégg champion ay ca buubu maa ngi lay ziar. baax. maa ngi lay bu baax a baax a baax. di sant waa Samb yëpp. rawatina di sant sama yaay ak sama papa. bu baax di gërëm waa àdduna yëpp. di gërëm waa commune Paatar yëpp. parce que su ma limee damay juum man nekkatuma mbiru Samb kese mbiru àdduna la parce que ñëpp a may bëgg. waaw di ñaanal père yi ak mère yi yëpp yàlla bàyyi leen fi ba si kanam. parce que ñoo nekk suñu kanam quoi. war ñoo jàppale. di féliciter jeunes yi yëpp. rawatina Modou Gningue Lastander gars yi yëpp mafia bi yëpp maa ngi leen di sant bu baax ñu ne wax ne rek lamb moo ngi si kanam quoi dañ si am cër rawatina Diourbel nag dañ ko war a jël mais démb da doon bëri xale bu mën a bëri bébé jéen bu écrit góor yam xale bu mën a bëri am gannaaw mën a bëri mën a xeex combat bi démb bi nga jàkkaarloo ko moom démb naka nga bëri moom non loolu gars yi waxoon nañ ma ko bu yàgg te champion ndaa ndaana ndaana na koy suul comme boo ñaa ni mu koy waxee rek waaw dañ ngeen ñu ko suul ko nekk ndaanaan si kaw loo bëreeg moom boo ñu ci doon ñëwalaat arbitre dafa le génn seen diggante yéen ñaar ngeen lewaatoo arbitre dafa soufflé génn suñu diggante comme li ma Africa Fall waxoon waaw bu mu laa njëkk def dara waaw balaa muy préparé préparé ba pare hmm. avant bu ñuy def dara fekk fa li mu def li ngay def mu jeex hmm. waaw huit secondes laa ko daan huit secondes huit secondes kon bi huit secondes daa daa suble ñu lewetoo ma gëdd ko xam ne kii ab garde bi baaxul waaw ma dugal ko arrêt bu dal ñu xeex weccante ay ko mu ñëw jël si ma ma roccee ko bàyyi ko faxas ko mu jàll ma fekk ko fa remplacé ko allah waay tàccu leen loolu waay waaw te loolu lañ ma sasoon gars yi loolu lañ ma sasoon quoi mafia loolu lañ ma sasoon quoi daa am lu nekk suñ kanam ñu nag duñ laaj kenn nag mais ku ñu jox rek lamb boole la ñu mais mais ñàkkul mbër bu nekk sa xel kan man non am na nañ ko noppee rek. Ah, yàlla baax na bëggoo laaj kenn quoi. non ay ca loo wax supporters yi. supporters yi maa ngi di gërëm bu baax baax leen sant. Uh-huh. Eh, ñu yokk taxawaay bi ah. Uh-huh. yal na yàlla gën seen fan ñoom ñëpp. bàyyi leen ko ba ci kanam. di sant ñëpp. ak mère yëpp. bilahi damay ñib bi may dem stade gars yi yëpp ngi ñaan. ndeysaan walaay naa deux cent nangam billet lañ jënd. macha allah booy walaay Nazim. toog ma ñu dem stade te loolu yëpp am na ñoo xam ne maa leen mag am na ñoo xam ne samay rakk lañ am na ñoo xamante ne samay mag lañ am na ñoo xam ne seen mag laa. Mhm. mais dañ maa jox cer ma jox leen cer ñu ànd. te dañoo fas yéene liggéeyal Sambé. waaw champion moo jafe Sambé. Mhm. ah te dama war a nekk champion rawatina Malick Niang mi am combat. dëgg la yàlla ko yàlla may ndam. booy bu baax la. Mhm. di sant waa écrit amul salalan. Euh, Lacrosse kii Bébé Diène. dafa ñàkk. mais nag euh, yàlla mooy yàlla ak jaam ak pexeyam ah. waaw yàlla mooy dogal a beneen yoon lay dàq xëy na loolu yàlla yàlla namoon si moom. waaw def na ko loolu moo gën si moom. na dem wuti waat waaw a loolu noonu dañ koy jël bilaay walaay. waaw comme moom ñàkk na ñun ñoo am rek mel na ni moom am na waaw moom suñ suñ ñàkkoon tey mu am rek mel na ni ñoom ñun ñi tam dañoo am waaw ñun ñoo ñoo bokk bilaay di sant ñëpp di sant Yamou Sarr di sant Africa Fall di sant gaay yëpp bilaay di leen bëggee bu baax a baax di sant baj jóge ngaa dara bu fii ñëw di ñu jàppale si contact di ko sant bu baax di sant daaw magam sant la Sandeera ñoom gars yëpp mafia bi yëpp su ma limee damay juum quoi. bilaahi jaajëf sant mafia. ayca mbokk yi mi ngi noonu kon rendez-vous incha allah samedi fële ca stade Elimanel Fall diggante Zarko ak ki nga xamante ne bii mooy Malick Niang merci beaucoup.